waa jaay yu bees dàq lañ koy solal mais da ngeen koy sang bu ko bàyyi mu dem sumbil leen ko yére yi ngeen sang ko indi leen ndox mi ndox mi na dem tàng na baax na noonu roodal robinet bi rood ko ci robinet bi yu set jox la nga lekk ba suur bàyyi Aliou jëlee na xéwal gi waaw. tijjil musal. tijjil a ngi liggéey liggéey bu am solo yéen a ngi nuggal ndox mi di root ndox mi jënd seeni siyo takk seeni gants bu boobu feesee da ngay waaw mu mu ndax mu gën a gaaw waaw kii mooy trésorier général muy Baye Matar Faye nekk jàmbaar lool borom yitte borom pas-pas. baax na Ousmane leen ko wey ana leen ko wey ana beneen ku bongali genre mhm. waaw aca Baye Sidi waxaltaanal ak moom am na ñoo xam ne tey ñu ngi leen a xeex di leen peet ñun nag ñoo ñëw pour dëkk ak yéen nekk ak yéen jàppale leen ngeen mel ni ñun wala ngeen gën ñu tey léegi loo tax waaw kon nag euh, bu ñu réunion ngir dugg si biir nga xam lu ba rafet bombal njàmpe bi nag bu baax a baax sang leen ko bu leen ko yéen yéenay dugg sang ko ana ana saabu non dugg dugg leen ngeen sang ko da ngeen di dugg bàyyi ma taal sang sang leen ko duñ ko jël duñ jël kanamam duñ jël kiyam yéen yéen a koy sang. déedéet yéen a koy sang. yére yi nag génn dañ koy changé. dama koy dagg waaw.